Salam alaikum à vous la j'espère que les cool et que tout le monde se porte hyper bien. Alors merci et bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221. Bien sûr la chaîne des news, la chaîne des plus belles chroniques, mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc jusqu'à présent vous vous êtes pas encore abonné. Qu'est-ce que vous attendez au fait l'engagement pour abonner vous dama ni abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification dina leen permettre euh, buñ dugalatee vidéo rek automatiquement ngeen jot signal bi sans pour autant ngeen di sonn di def ay recherche ou quoi que ce soit alors gars yi gisoo leen ni temps yi game bi dafa loow game bi kenn xamul lu muy saf dafa loow trop sax et pourtant on voit bien que ne rappeurs yaa ngi génnee ay sound ñoo ngi door ay concert et mais li ma seetlu ba léegi jusqu'à présent moy sen game bi dafa low trop sax et sama xalat moy lolu du yoon Deug la bien sûr clash des dundal rap day tax game bi yëngu day tax game bi neexee tout mais tamit ngeen foog ni grand yi nek ci kaw buñu defone collaboration ak new génération bi nek ci souf du gëna a game bi bon c'est juste mon idée c'est juste une idée Euh, selon moi nak la wax lolu la gis xawma nak yeen parce que lima gis ni gars yi hum, dina rey gem bi tuuti de à vrai lii nag bëgg naa ngeen jox ma ci seen xalaat bu dee vous avez fait la remarque et bien sax normalement yéen ñi nga xam ne yéenay dund hip hop Galsen war ngeen mën a def remarque bi que gem bi dafa low trop sax. léegi nag gars yi bu weesoo loolu dafa am quelques artistes yoo xamante ne ni ñenn ñi génnee nag ay sound ñenn ñi ñu ngi waaj dara.

bokk na ci artistes yu gën a respecté seen carrière moom caaxaanewul benn yoon carrière am te boo xoolee carrière yu jigéen ci milieu bi yàggul dafa gàtt mais bokkul ak ñooñu moom elle est très différente et boo leen xoolee dafa polyvalent ji day rab di way nu mu ko neexee et loolu dafa ñuy jox yaakaar ñu xaar ci moom album bu bari couleur album boo xam ne àdduna bi yëpp mën nañ koo déglu dina am 100 pour cent musicalité dina am rab dina am way dina am lépp loo leen mënta xalaat ci biir album boobu. album boo xamante ne ni def na ci ay millions yu bari sax pour mën a euh, respecter ñu koy déglu de toute façon man moom dama yàkkamti albumu OMG OMG rek ci mën a rap. OMG rek ci mën a woy bari skills am flow dama ko yàkkamti vraiment. donc gars yi l'album de OMG intitulé possible dina disponible ce 29 juin inshallah. allah nañ ko xaar ak doole man mom yakam naa ko loolu moom <laughs> ko ba pare yakam naa lol xawma nak et avec OMG on peut s'attendre à tout léegi gars yi deuxièmement dañu ñew jall ci ki nga xamante modi moo di Mojo bon récemment gis ngeen Mojo genné ben sound bo xamante c'est intitulé zéro tey nag bien sûr ñëwuma pour wax ci sound bi carrément maanaam décortiquer pour ngeen comprendre parce que nag maa ngi ci waaj a def une chronique très spéciale donc xaar leen ko mais nag li ma bëgg a wax mooy public bi bëgg naa ngeen gën a may nopp Modio parce que artiste bu am talent la artiste bu complet la à vrai dire Modio amatul lenn lu muy prouver ci game bi lyriciste bu mag la sax et ko xam Modio ci rab bi nga ko xamee rab woow bi moo tax mu gagné cinq millions cinq briques laa leen tegal de compter leen un deux trois quatre cinq cinq millions et jusqu'à présent changé wu lu muy def tey la ko gën a mën certes benn instant indi na beneen style de musique comme ni gars yi di woowee rab bu nooy bi mais loolu da doon clash yi nga xamante ni ñooy def rab bu nooy bi et wan leen lépp lu ñuy def moom tamit mën na ko à 100 pour cent et que dàkkuñu ko ko et pourtant dafa polyvalent loolu loolu da koo mën. et jamono bi ci nouvelle génération bi mu mootee flambeau Kaolack di ko représente partout fépp fu mu mënti dem Kaolack lay ndamoo concert bu mu fa def day fees dell sax donc li ma bëgg mooy public gu Rap seen jox moo nopp gars yi gen bi yaatu na nekkul ñoom dib dundu gis kese ñoom Ngaaka Blindé ñoom Akhlou Brick ñoom Matadi ñoom Sam Pose nekkul ñoom rek ñoo fi nekk non am na Mojo am na Big Dad X am na ay taal bi am na waa Akatsuki am na ñeneen ak ñeneen donc may leen booyee nopp dañuy génnee lu carré sax vraiment ils sont très talentueux donc li ma bëgg moo ngeen def mooy s'il vous ngeen dem ci chaîne YouTube bu Mojo ngeen flow ko seetaan vidéo bu mu mujjee génnee partagé ko commenté ko à vrai dire booy bi lu muy job wallaahi mérité na ay millions de vues je donc s'il vous ñàkk a déglu Mojo wóorul te dinaa leen wax lenn de je vous ku dem ba nga xamante ni yaa ngi déglu Mojo jox nga ko sa nopp doo ko réccu chaque jour di nga ko déglu parce que li muy bind moo carré donc mi ngi noonu gars yi s'il dem leen ngeen flow ko ngeen teg ko loxo may ko nopp. troisièmement dañu jàll ki nga xamante ne ni moo di Samba Peuzzi gars yi temps yi gis ngeen ne am na quelque images yu circulé ci internet bi moom Samba Peuzzi mu ànd ci agrément un artiste nigérian. vraiment benn artiste nigérien la boo xamante ne star la de non mais je veux dire artiste bu mag sax et mook Samba Peuzé ñoo xaw a niroo style vraiment artiste bu bari ñu koy suivre la car euh, si je me trompe bien sûr ba ma duggee di xool ay clipam gis naa ni dafa dem ba ay 69 millions de vues 69 millions laa leen wax de 1 million de vues rek pour nga am ko c'est tout un problème donc waxatuma la 69 million de vues. globalement mook Samba Peuzzi def nañ benn featuring et naa ko trop sax car ñaari bo yu waane lañ te ñoo ñëroo style aussi et Samba Peuzzi mu ngi sonn ci international bi donc bu amee featuring ak euh, ak yenn artistes yi loolu opportunité bu mag la suñu ndam la ndamam la bien sûr mais ñun tamit suñu ndam la parce que featuring mayante xaalis la weccoo public la et vraiment am na public bu bari sax donc loolu ngandim opportunité la pour ñoom ñaar ñëpp sax

C'était votre Kenza 221, bien sur l'animatrice de luxe, la grande chroniqueuse. Comment sort le, tu peux me joindre sur ma page Instagram Kenza l'officiel, ma page Facebook Kenza 221, sur TikTok Kenza National et sur Snapchat Kenza Diallo. Ah mais bien sûr, histoire de vous montrer ma montre, donc je continue guys, love you all, amlen len jamm, na len Gros bisous à la prochaine. Bye bye.